déglu ma wax ci moom bëgg rek jariñu fa moom moom moom li nu moom gennuk moomee la fi am fee Saliou la nu miin kii la nu doy loo sang baa ma wax la jawan borom dégg neex a jar woyal ku am ikamat yow lu ma way defar na yeesal na di koy camang ndaw ñu jóg nañ yarkat bu mag baa ngi feeñ na Saliou la nu ngi la nu tay loo sang baa ngi xol yaa ngi jëmm yi ak ru yi jox nañu la yow mi cosaanu mbaax yépp yow la Saliou la nu ngi la nu tay baa ngi addis yi taarix lépp lu baax la borom jamono am ko doy na saalihu lanu miit ki lanu doyloo sañu baange yonen yi bu ñepp del si woon jamono du tax nu war borom jamono saalihu lanu miit ki lanu doyloo sañu baange ki lañ xam ba far am lu yàlla saalihu la gas leen ndoxum nga ne mosu leen. Saliou la nu miin kii la nu doy loo baage. duma suk ki leen sut. te mooy ki tiim nit leen. sangub bi deew yaa ngi leer naa. tax may wax loolu Yoro yàgg na def euh, bés bu mel nii musuma ko fekkee mais ñu introduire du dugal ma jox ma xilaafa gi première euh, xew bi ma fekki ko kon nag euh, du du du du du du tàndale lu lu sunu borom def la kon nag moo tax ma ne maa ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu mbooloo mi fi nekk ñëpp. di nuyu ñëpp eh, ki nga xam ne it moo moom bés bi eh, muy yoro eh, maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal gudd fan ak wér moom ak ay rakam ki nga xam ne tey moo toog sa wet muy Ousseynou Isaac Diop maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal moom it gudd fan ak wér yaram ak sutura sunu sunu jëwrin bi moom it ñëw léegi indi fi ay xéewal ah Babacar Konté Yoro sunu turno papa boole ci muy papa ci ñun indi fi liñ ci xéewal momit babakar ñi ngi lay ñaanal gudd fan lo mën ren yalla nga mën lu ko ëpp yalla yokul ba nga yekko ñun ñep ñu fekk ko mu lo gannaaw lool yoro sa xarit bi geey jóge ba ngomen ñew fi jappal si te bi muy ñew ba nga xew bu mag te dekkam parce que dafa am ku fa wàññeeku juróom eh, yore nee na ma ñëw na démb indi juróomi saagu soble tey jii bi muy daate ñëw am na ku wàññeeku ca dëkk ba mais dafa leen ne ak lu mënti doon damay dem kay del si fa ngeen jóge Touba ñu daje fi mais mënu ma ñàkk ba su yore boobu kon it eh, Guèye amee nañ la ngërëm di la sant di la ñaanal kontaan nañ trop trop trop yooyu loo mën ren yàlla nga mën lépp lu këpp ëpp eh, déwén yàlla yokk yow it ba nga yëg ko kon nag yal na yàlla gën dëggal seen coloré et gën leen euh, dolli soutre may leen gudd fan bu ànd gi wér-gu-yaram yàlla barkeel lépp lu ngeen def kontaan nañ trop trop trop trop et di nuyu yoro soxna yi soxna Xadi ak rakam Yaasin Géey ñu ngi leen di nuy di leen ziar di leen ndokke ci bés bi leen kontaan nañ trop trop trop trop li ñuy wax xëy na euh, damaa mënul wax mais li nekk sama xol ëpp na loolu ëpp na loolu ëpp loolu bëggoon naa wax lu ëpp loolu wante nag eh, xëy na di ngeen ma mën a comprendre ah Ousseynou yow it maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax léegi léegi rek maa yow waxtaan nañu waxtaan bu am solo kon nag eh, yow it Diop maa ngi lay ñaanal gudd fan a wéram ah, yàlla bàyyi la ak sa soxna barkeel njaboot gi. kon nag daal eh, foog naa daal maa ngi yebale fi kàddu gi dolli ñëpp. gërëm ñëpp sant ñëpp yal nañu yàlla may fekke ay at yu bare bare bare yàlla barkeel ko kon nag euh, loolu laa amoon ci may wax jëmale ko ci bés bi di kontaan di dolli ñaan jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah famille bi yaatu na hmm. waaye da ngay gis ni xol yëpp ànd nañ ci lool hmm. fekk sa borom def ko nag teg ca hmm, kon dañuy wax yàlla na yàgg lool amiin yàlla na yàgg lool amiin yàlla na yàgg lool amiin lool amiin lool mooy weeru ko ak jaamu yàlla suñu borom moo ñu ko digal mu bokk ci ponk lislaam hmm. bi mu ci bokkee ba noppi hmm. ndigal liñ ci amaat nag di ci hmm. defar ay bendel ki xiiwal di ko yóbbu ca kër sëriñ ba sëriñ ba da caa bég lool sant ca ñu ngi ko commencé nag fii deux mille quatre deux mille quatre naa dix-huit la ci saa su nekk bu doon benn mbana sax dana yokk ci li ñuy toog saa su nekk ñi ngi yëg ak yokk te lépp nag bokki taalibe yi bokki julli dëkkandoo yi hmm. boo génnee ci ëtt bi gis soxna yee togg hmm. som sama kër ndijaay mbay ci am hmm. moom moomee at mu moo ci njëkk joxe ñaar fukki junne premier jour koor dafa naan ni ramoon na la ko wax premier jour koor dana ci joxe ñaar fukki junne yoo xam danaa ko téyel bi maa ko ci tàmbali docteur Ndawi bu ñëwee def lu Hmm. xam naa ni di nga xam di nga xamee moom hmm. incha allah dina la boole moom ba ngeen ñëwante dëgg la comme jëmm mu def ak ni ngeen ñëwee ni ñëpp ñëwee hmm. noonu lay demee nga xam kenn ku ci nekk ñu ngi cay feeñal ak ngërëm suñ dafa wax ni wax ji xawaa i jëlle si na daamu fi xidmati wa hëpp la fu maaraamu nga sa borom bu dañ di faj ajo ñi nga xamee ni dañu xël di ma liggéeyal ñee ki may liggéeyal fajub aajo lay am ndax sa borom dafa jox fajub aajo ndigal mu ñëw ci man ba mu dikkee ma daal di ko yabal ni ko ngeen wër jullit yeeg taalibe yi koo ci fekk mu nekk ci la ko war fajal aajoom te boobu taal. nee na faj ko aajo ba mu hmm. ko jox ndigal ni ko dellu koo ci gis mu ne ca la ko war rek ne ci ndigal sax ci njub rek fajal aajoom. Hmm. te sax ci njub rek moo ko hmm. ndax moom suñu yaram yi. dafa làq ngërëmal suñu sañ. Euh, teel a gedd àdduna teel a du mooy lu nekk necca dëkkmal ko. boo cay nek nak da nga ñak say mbokk ñak say xarit ñak say lepp waye bu ngërëm la dikkee suñu borom delo la seen mbokk delo la sa bokk delo la teranga jox la bokk moy deug waaw kon nak yalla yalla do doon ñu sutura amiin yaa rabbi amin amin ya rabbi ni ko ni diko ziar moom ni la ko waxe non la ko defee mhm. waaye daaw kii Babacar nii mhm. suñu tundu papa mhm. gis nu suñu nak nag deug la <laughs> dañ ko tuddee bër waye soxna Xadi nak ngeen ni ci bir bi soxna Xadi moom si yor soxna yi ci kër gi mooy hmm. seen jëriñ hmm. rakkee ngi fi hmm. Fatou Mbaye ngi fi ajee ngi fi waaye moom mii mooy seen jëriñ ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa te pourtant maagu fii dina njëkku fi waaye liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ñoom ñëpp mooy seen jëriñ loolu man la koy seede moo tax nag kon faw suñu borom dana la jox doom joo xamee ni ah yàlla na yàlla laf cat daal amiin amiin amiin waaye démb li ma gis ci alxuraan bi man démb ba ma dee mënu sama bopp ndax damaa xam ne lii mérite la. Hmm, hmm. waaw lii leneen la du suñu borom di wane. Hmm, kon nag yow nag ñu ngi lay ñaanal nga yàgg. amiin yaa rabbi amiin ndax yow da ngaa amal islam njëriñ. amiin yaa rabbi amal famille bi njëriñ. amiin kon foofu suñu borom bàyyi ndi la. amiin yaa rabbi amiin jërëjëf amiin jërëjëf amiin jërëjëf amiin jërëjëf. bis bi yàlla sax amul ñaari fan ñetti fan bàyyi woo ma maa suñ koy dama laa koy dégg loolu mënut a am euh, euh, xadee nga lay laajte man ko ana xadi euh, xadi eh, yàlla def ko muy jigéen joo xamante ni nan ko ñaanal yalla bu ko kenn gëreem nan ko ñaanal yakana limam li jaara bu ca am yaakaar bu xadi guddee fan dina am lu ko jël ndax ay tankam la top ndax maam imam jaara maam jaara bu ca ah, dafa topal ndigalu kilifa ah, ah, soxna xadi top ndigalu kilifa amul benn bis boo mos a ñëw eh, ma dégg ba yoro wax xadi teg ci benn bat bu lu dal di jëfé dal di jëfé eh, ba yoro ñun sant na leen sant suñu xol sant wuñ la lu dul lu baax loo am yéene ñu ko yal na la fi yàlla yàggal seeni sëriñ bii di sëñ Saliou Touré yal nañu ko yàlla samal ba ci kan ci barke yonent ci barke Ahmadou Khadi eh, eh, eh, sa mag ji Isaac kontaan nañu naa la fi bàyyi wax waxuma la ku bokkal waaye ku ma xam naa la ku xam ñime naa la ndax bàyyi moo ñimelu moo la ubbil boppam yaatal la ci bopam ba dila wax lo xam sax da nga waxal sax lii est-ce man lan la ma ci wax ndax ak xiram ak ak akuk ak ak beugam lu bax ko su bisu melni amé nga dag sa yitté ké dag yitteem ké dag yitteem no dajé fi eh, ba yor ñun ñep ñu ngi sant ñu ngi ñu ngi lay ñaanal ndax lu bax man mi day yalla séré na sama tante la bay mu wacc ligé ay jamono yu ñu wax mako fekk bañ mo wax sax nak ma nga ci alba alba bay tol eh, sama gone na fa ma fajaru fa door ko wër foofu lañ ma woy ma daal di bañ ma ko waxee dëkk ma xalaat lu nu bàyyoon ma daal di daw daal di ñëw ci kër gi ñoo ne dañuy dem daal di yëpp ba ñëwee ma egg man sama soxna ma ne maa ngi dem cees mun ma xalaatoo ko man ko opérateur bàyyi ma dem Thiès rek ndax kii ginnaaw li am am na dem na Touba dañoo woor kenn ku ne da ngaa toog bàyyi man fi yomet gis yor siyaar ko waxtaan ak moom del si bala balaa balaa ay parce que bi mo be indi Baye Yoro lu japp japp nah. na lu mo baye baye na ko Baye Yoro yàlla na gudd fan na and ak wér yàlla na ànd ak jàmm noo ngi di sant yeen mbolam yeen ñëpp di len gërëm Baye Yoro lu mu am neena ko bo guddee fa lu nit ku bax di am di ko neena ko bo guddee fa lu nit ku bax di am di ko am ñun ñep dañ leen ko ñaan mu gudd fa ta and ko gërëm ak njabootam yalla na yalla sam samal njaboot gi kër ak al jërë gën jëm ngeen baal ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ange mu min shaytani rajim ñu ngi sant yàlla julli Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur di sant suñu borom kër ñu Ousseynou Isaac ak magam Dieng sëñ Yoro Diop ak Adama Isaac sëñ Adama Isaac xam ne ñoom ñëpp mooy seen xalifa ak bàyyi ñu man ku ne xam sax dama wax ci mbooloo du ma woowee sa salaamaaleykum waaye lépp a sant yàlla lépp ak cant la man fi sama kër la man fii damaa ñibbi sama kër ñoom ñi sama càmmiñ lañ sama cousin lañ sama càmmiñ lañ suñ ma mayee ma sëy kon ndokk na ba ma ñëwee fii ndokk ndokk ba xam da delloo ci ca waaram moom ma ñu ngi sant yaayam aja ajatu mari mbaay yal na xippal ci àjjana kawe kooku kooku mooy xalifa mooy mooy suñu xalifa mooy suñu xalifa kër papa ma sama taaw kër papa kon ma kon man fi ma dugg laa dugg fi ma dugg rek fi ma dugg rek laa dugg macha allah ma dugg na ci ay góor ay jullit ay yaaram xiifuma maruma macha allah maa ngi sant yàlla bu baax xiifuma maruma maa ngi sant yàlla bu baax dëkkal nañu ma dëkkal nañu lépp nañ lépp nañ ñu koy gërëmee sëñ Yoro Diop mi xam ne moom kilifa mooy kilifa Ousseynou man Ousseynou mooy sama borom kër mais ba tey ba tey Yoro Diop mooy suñu kilifa parce que moom mooy jëruñ kër mooy ndegu kër bu coow la bëri ñun ñii la ñun jigéen ñi la mais ñu am benn problème kër gi kër gi wër na yàlla dafay xool day toj sax ñu am xanaa xanaa xanaa dañ ngaa xanaa góor yi nekkuñu fi ak si dinaa nekk te pourtant ñu ngi fi mais dañoo mais dañoo lewet macha allah macha allah te lii dañ ko cant gi dañ ko dara def boobu yàgg na xale yu xale yu bëri xale yu bëri dund na ci kër gi cinq cinq te te te ñu ko te fekk te fekkuñu ko kon bii su ma su ma yeboon ni bii mooy douzième douzième waaw bii mooy voilà waaw bii mooy dix-huitième ñu koy def kon yàlla na yàlla na dem ba jëm cent ans ci barke Sidina Muhammad ci barke alxuraan karim te ñu ngi ñaan jotaay bi yàlla bu mu nekk si suñu mujj jotaay ngataay bi yàlla bu nekk si suñu suñu suñu suñu suñu ngataay te képp képp ku indi jàng yàlla na ko yàlla sekk dëgg bu suuna képp ku indi ñàkk yàlla na ko yàlla teggi ñu ngi ñaan yàlla na bu déwénee ñu ñëpp yàlla na jóge suñu kër yi fi nekk kër cosaan ñu ko fay defee ci bàkk si dina am dama ànd ak wér bàkk yu tedd bi wax ñu ne maa ngi ko gàttal maa ngi si ñëpp maa ngi gërëm ñëpp bàyyi ma kenn di gërëm nag suñu ñoo xam ne mbaay ñoom rakkee ñoom aji mbaay ñëpp ñoom yaas na ñëpp ku lim juum awaa koñ bi ñëpp ñëpp ko jàpp ñëpp ko jàpp ndax suñu mën naa gën duggam teg ko mais nit ñi ñoo ko jàppale après ba ñëpp sant nañ ñëpp dëkk ñu mbokk yi ñëpp sant nañ ñëpp bàyyi ñu kenn dañu ko ñaanal cantam gi yàlla na nekk ay cant cant cant cant ci bàkk si dina am ci bàkk ñu fekkee kenn bañ a manqué ci bàkk yonti bi suñu yoroon jërëjëf jaaraam kontaan nañ dafa doon itam Serigne Touba moo tax pas-pas ba saxaaba ya amoon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bu doy noonu moom la jëmbat ci bàyyi yoro mi yitte ja mag ñi amoon itam te yitte jooju bàyyi ko ci sunu borom jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam agsi ci Sëriñ Tuba ndax mag ñi daanañu daanañu daanañu jàng daanañu farlu it ci lu bari waaye yitte woo yàlla te yàlla kenn mënu ko am lu dul da nga jël sa yitte jëpp aj ko ci moom moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko rabbi asxaabaka bil himma yar leen yar leen ci ñu kaweel seen yitte ci seen boroom ndax njàngum kese mayul kenn ndax am njàng moom day mel ni yoon wuñ la tegtal xam-xam loolu mooy njëriñam daf lay tegtal aw yoon aw yoon nag buñ la ko tegtalee ba nga xam ne nii la boo ci jarul doo tax a àgg maanaam suubu yoon rek dox dox bu wér moo lay tax àgg ci sa boroom waaye yitte jooju moo nekk ci sunu wayjur wi féete na sëriñ bi fépp ndax moom day jëmm joo xam ni booy seet danga naa baraa na ci mag ñi ñoo xam ne kenn ku ne dafa am ci wet goo féete sëriñ bi waaye moom wet goo wet goo lamb rek gis ni eh, dajaa fees dell sëriñ bi liggéey loo ko ci xeeti liggéey yoo xam ni amul kenn ku ko fekk si ca liggéey yooya wér goo seet rek waaye la ci gën a kawe nag mooy jëmmi boppam ji nga xam ni loolu moom mi la ko dénk ak mboolem njaboot gi li nga xam ne mook doomu aadama ñoo dëkk waxtu bu ne mu di ko gaar muy tawat saa bu feeñee kenn saa bu feeñee ci kenn rek di moom ji la sëriñ bi woolu ba ci jëm boppam ji moom sëriñ bi loolu nag kóolite mënu ko weesu kóolite mënu ta weesu noonu waaye ku ne gis na tey laxasaayam gii tey jii nun dañoo jàngewaat ci jëmmam ji nii waxtu wu ne dañoo war di dëgëral suñuy laxasaay ndax su wàcce waroon ñu ne bàyyi yoro wàcce na te tey jii la ak laxasaayam gën a dëgër diggam ak sëriñ Saaliw Ture kon lii ab day day day day soññee gu ci nun ci nun ndaw ñi ak soñe gu rëy la ci noonu moo tax ñaan sëriñ bi mu may la wér gu sax jox la kattan gu dul dog ba faw ba yéene yu yi nga am ci toolam bu tedd bi nga jëf ci lu kawe sa njort waaye li mu wax léegi mooy mooy li am moom taxawaay a Aboubacarin Omar Ousmane Ali yi taxawaay yu tedd yooyu moom laa amee ci biir kër sëñ Saliou Touré boo nee sëñ Mandoumbe ne Cheikh Ibrahima ne maam Thierno kàngam yu tedd yooyu yee te seen taxawaay yu mag yéen amoon biir kër sëñ Tuubaa wuutiwul ak taxawaay yu Baye Yoro ci biir kër sëñ Saliou Touré lu lu di defal ab sëriñam Baye Yoro defal na loo sëñ Saliou jox na ko léppam jox na ko jëmmam jox ko xolam jox ko ruuxam jox ko léppam waaw jox seetal li wax léegi maam sëriñ ñu daf koo tàggat ci melo boppam maam maam moom melaw sëñ Saliou Touré la amee mooy ku fees dell te bu la nga yéene ko sara ba fees dell ci wet yëpp nag loolu mooy melo sëriñ bi mooy melaw sëriñ bi mës a yittewu addina waaye ba Yoro boo ko xoolee xam ne kii amul lenn addina lum yittewoo te dëddu addina ak addina dëddu la ñaar yooyu dañoo nduróo te bokkuñu ndax dëddu àddina mooy jekku àddina mën ca am lu ne ba noppi jàllax ko wan ko gannaaw loolu kooku moo dëddu àddina te moom melo wa la amee dafa jekku lépp ba noppi wan lépp gannaaw dëgg ma sëñ Saliou Touré bi ci mbubb yu oyof ya tey li ma gën a yéem ci moom mooy Baye Yoro doo gis ku ëpp teggin ku ku gën a yoro ku gën a yaru Baye Yoro Diop doo gis ku ko gën a yaru déedéet kaddum jukka man musuma ko deg don donte ni nak desana ko mat seede ngir ci kanamam lañu gënee adina mu yor na ci loxom waye nak goné du faté waye Baye Yoro ni ko xamé won eh, nga xamni dañu gindi ko da xam ko sëriñ bi melowoo ba tay ji amul lenn lu ci soppi foko fekk ci dal gi ci gi mooy li ma leen wax léegi ne melo yu sëriñ bi sëriñ bi daf koo dimbali moom dafa amee meloy yu sëriñ Saliou Touré tey daf koo nduru ci ay jikko daf koo ci ay jikko waaw kon nag moom waajur la woo xam ni waajur wu tedd la waajur la woo xam ni kumu njaboote war war ngaa góorgóorlu waaw ndax waajur dafa jafe li tax waajur jafe mooy kenn du ko tànnal sa bopp sun borom mooy mooy mooy mooy seet lu lu soob mu def loolu mooy seet lu soob rek ndax ni judd na ami waajur yoo xam ni bu doon tànn du leen tànn loola nattu la waaw kon nag bu nu yàlla defalee tawfiix ñu am waajur wu mel ni moom dañoo war a futti ko laxasaayu fas yéene melom mu rafet wii mu amee ak jikko ju rafet ji ak doxin wu sell wii noroy ci ndog yi tey ku takk ak laxasaay di ca naf nafi rek war na na laa sant ndax da ngaa bokk ci ñi ci ñi jëmm yi nga xam ne dañu cee wane yoon wu yaato yaatu saa su jugee ba ñëw dellale naa kër gi ak daala ji waaye mboolem koñ bi wër kër gi mboolem kër yi war kër gi kenn ku ne eh, teraanga yi day yaato yaato yaato ba ku ne da nga cee sa bopp saa su aayee ba ñëw fu ne ndawal teraanga dana fa àgg ci turu sëriñ bi te loolu di di di sag bu rëy rëy rëy rëy moom saa su ñëwee yëf yi dafay doy na kii man ngir yaatu ngir xër gi ba démb rek soxna sànq waa koñ bi de war nañ leen tibal waaye suba yoro ñëwee rek mu daj waaw bu ñëwee ñëw fu ndawal teraanga war a dem rek dana fa àgg loolu kon di taxawaay boo xam ni doy na kii man a ñoo ngi lay siyaare te di la eh, ci barkib sëriñ bi te di ko saako ci yow noonu nag cër yi nga am ci noonu daa bari te xam nañu ko te bàyyi nañu ko xel eh, sëriñ bi itam moo boole woon ak sunu jur di soxna jaara sëriñ bi moo leen boole woon loolu yit moo xam la tax mu def ko te it waxtu wu ne soxna si dafa may soññ ci bay yoro ne ma dee fa dem dee ko nemmiku dee ko seet ndax wóor na ma ni léeg mu nek ci deram gi nga xamni bu ca toge lu ñaan borom am ko ah, lu ko ñaan mu defal ko ko léeg ma yek mu ne ci deram gi nek ci ay mbir yo xamni ñu na tax ah ñu na tax dino dino dino dino defal yi fi bir, ngir sun borom eh, gën ñoo dimbali gën ñoo musal lool nak defay wone ni da no njaboote ta xaarul amul lenn lu muy xaar ci non ana ngi ngi sant bu baax baax baax baax di ziar suñu seenu bu baax sa rakk ju baax ji nga xam ni li fi moom rek moo moo ne yow jikko ji ak melo yi lépp lenn la ah, ngeen nduroo ci jëmm ak eh, nduroo ci wax noonu ngeen nduroo ci biir waaw ah, moom it léppam sëñ Saliou la saa su ciy wax da xam ni kii ku xam sëñ Saliou Touré mooy wax ku dund ak sëñ bi loo xam ne ni waana nga gis ku am tawfeex gu mel noonu ci ci ci sëriñ bi na ñoo ngi koy siyaare ak mbokk yi ñu fekk yëpp di ziar sëñ Babacar Konte moom itam di jàmbaar joo xam ni ba ngay liggéey liggéey bu yaatu ca sita lamin bi ñuy waaj koor gi rek la ñëw eh, ziar boo xam ne ziar bu yaatu waaw mi ngi noonu tawarkàlla waaw yi moom na ko lool ci moom keroog bi ñuy waaj koor gi rek te at mu jot noonu la koy defee nga xam ni daanaka bu ñu mës a um koor sëriñ bi ñim daa jox ay teraanga lu mel ni ceeb ak suukar yu mel noonu at yi yëpp xéwal yi muy indi ci la ko sëriñ Cheikh di di di di yónnee maanaam képp ku sëñ bi daa yónnee teraanga rek mu laxasaayu taxaw taxawaay bu rafet boobee kon moom nga dolli ko ak ñaan bu baax suñu borom gën ko dimbali gën ko kàttanal bala mu yéene ci tool bi mu am ci lu kawe njortam ñoo ngi seer bu baax a baax bi ñu ñëwee dañ fay jàngewaat ak taalibe te yàlla xam ne ni yëgee naa ci saal bi loo xam ne gëj naa ko yëg lool ci sama Ah, ah, bi ngay bi ngay wax yëg naa ci sëriñ bi loo xam ni loolu géj na ci man gëj na ci man gëj na ci man lool lool ñu ngi sant bu baax a baax salaamaaleykum jërëjëf sëñ Xaadim ñu ngi koy sant bu baax di santati waajuram ñun lu nu xam wala lu nu am rek mooma lu nu mën mooma bëri na loo xam ne rus naa ñu ma ciy gis sax yàlla ak jëmm ji sëñ bi rus naa wuteeti dara diggante bàyyi sëñ bi ginnaaw waaye loolu lépp fajal nañu ko ndaxte amatuma soxla suy génne ci biti lu ma soxla dina ma fekk si fii koo xëy ni junni ngay joxe dépasse junni léeg-léeg nga joxe lu ko ëpp léeg nga dagale lu mat ñeenti ginaar ni waa kër gi eh, eh, sant leen sëñ Saliou ah kon léeg-léeg ma yóotu xar weer wu jot ma defar xar weer wu jot léeg sax ñetti yoon ba ñaari yoon ci weer te yàlla ak jëmmi ji la waaw lan daan sonn ci ëtt ba maanaam daf noo ëpp pay li mu nu defal ëpp na ci ñun dafa mës a toog sama cant ndijaay mu ne na ngeen xam ne yorom yi ni ma mel moom nii may doxee moom bu dëppul bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ma taxawee di ramm day taxaw di ramm kon moom la du man mom la waaw moom la moom xam na ni dina taxaw ramm ji sëñ Saliou Touré ah? kon ku mu ci yóbbaale doo sant keroog damaa damaa xalangu damaa xalangu sama tànk yi nekk ca kaw waaw ndaxte damaa xam ni moo ma bëgg dimbali man damaa mën a jaamu yàlla lu may yóbbu lool ah, gisuma ko ci benn wéyjur woo ni maanaam amoon na dayog googu ci jaamu yàlla kon bu ma fekkee damaa tase koo xëy ni moo ma bëgg a dimbali ah, damay santati sëñ Saliou Touré moo nu bëggal boppam ndaxte bi muy nekkee ci koñ bi kenn xamu ko fi mu tété dini dini dimbali dini dimbali mom mom la lepp mom la ndax bawa xamunu ko ndax boba ñun nañu doon doxé tuarkal ha ah, sayere lol ha ah, kon bi nu démé ba lol lepp mu faxas ko ci ñun ba tay ji ñu ni naw ci diiné yalla jëmom la ha ah, koku dañ koy sant dañ koy ñaanal wa mu yag fi lol di ñaanal njabotam yalla def ci ñom gudd fan te yalla def ci ñom barké waaw njabootam moom am naa ci ñoom yaakaar lool ndax ñun daf nu xam nga koo xëy ne dangaa jël ay ndongo fële yóbbu leen ci maqaama yoo xëy ne bir na leen ni jaamuwuñ ko yàlla ah maanaam bi nu nekkee got xam nga man laata ñuy dem got dafa maa daf daf maa woo benn guddi Assane Gadiaga la yónni ni ko dawal wool ma yoro Assane bi mu doyee bi mu ubbee bunt bi maa ngi koy dégg boobu maa ngi toog di durus mu ne ma kaay wuyu sëñ bi ma ne ko wuyu sama ndey ma dee man saay bu ma nee <laughs> wuyul sëñ bi surtout waxtu woowu ay deux matin bi ma génne maa ngi bàyyi sëñ bi na muy ubbee buntu bu mag bu teel mel ni ku tàng maa ngi na ah lu xew ndax lu xew man la koy njëkk a wax bi mu ñëwee rek dugg rek fi fi ni ñuy defee fulk bi rek sëñ bi ñëw toog faranklaay ma ñëw toogee nii ci ginnaaw mu nu waa ji ñëwel nii ma daal di ñëw toog ci kanamam señ bi dimay xol dimay xol ba caa mu ma neel alhamdullilah rabbil alamin mu ne ko alamin mu ne li nga do wut ci sa borom am nga ko déglu ma wax ci moom bëgg ra jariñu fa moom moom moom li nu moom gennuk moomee la fi am fee Saliou la nu miin kii la nu doy loo sang ma wax la jawan borom dégg neex a jar woyal ku am ikamat yow lu ma way defar na yeesal na di koy camang ndaw ñi jóg nañ yarkat bu mag baa ngi feeñ na xol yaa ngi jëmm yi ak ru jox nañu la yow cosaanu mbaax yépp yow la lépp lu baax la borom jamono am ko doy na saaliw lanu miin kii lanu daliloo sang mbaange yonen yi xutbu yi bu ñepp del si woon du tax nu war borom jamono

am nañ loxo ba ñu tiimoon ban bi ki ko raaxoon soriwul wax Seex Saaliw nu doy kii mooy sun boroom si maamul wara ko bindoon nosu mi yaa ngi ci man ay sëriñ tuuba irham jami alwara ki moom wax Seex Saaliw nu doy ndeysaan kàddu yërmande ngi borom yërmande moom ndeysaan wax leen Seex Saaliw nu doy ndeysaan kàddu yërmande ngi borom yërmande moom ndeysaan wax leen Seex Saaliw nu sant rek a ku la am xam ni yaa jërë càkkaayoo sant rek ku la am am ikamat yow lu ma way la nu wekki la nu doyloo sang baangi defar na yeesal na di koy camang ndaw ñi jub nañ yarkat bu mag baangi feeñ na saaliw la nu wekki la nu doyloo sang baangi xol yaa ngi jëmm yi ak ru yi jox nañu la yow mi cosaanu mbaax yépp yow la taarix lii lépp lu baax la borom jamono am ko doy na saaliw lanu miin kii lanu doyloo sañu mbaange yonen yi xutbu yi bu ñépp del si woon jamono du tax nu war borom jamono saaliw lanu miin kii lanu doyloo sañu mbaange ki lañ xam ba am lu yàlla saaliw la gas

bëgge woon jaamu ru yi nangu woon ñépp a ngi naan wax leen Seex Saaliw nu ki ko raaxoon kii mooy sun boroom si maamul wara bindoon nosu mi ndef ngi ci man ay sëriñ tuuba irham jami alwara ki moom wax Seex Saaliw nu doy ndeysaan kàddu yërmande ngi borom yërmande moom ndeysaan wax leen Seex Saaliw nu doy ndeysaan kàddu yërmande ngi borom yërmande moom ndeysaan wax leen Seex Saaliw sant rek a war ku la am xam ni jara càkkaayoo sant la am xam ni nga yëg sa ci salaam meñ mënoo wax lépp fee xaaliwoo di amub am leen ma cat bu mag baa ngi feeñ naa saalihu lanu miin kii lanu doyloo sang baa ngi xol yaa ngi jëmm yi ak ru yi jox nañu la yow mi cosaanu mbaax yépp yow la saalihu lanu miin kii lanu doyloo sang baa ngi addis yi taarix yi wallaayi li lépp lu baax la borom jamono am ko doy na saalihu yeneen yi xutbu yi bu ñepp del si woon jamono du tax nu war borom jamono saaliw lanu miin kii lanu doy roo sanu baage ki lañ xam ba far am lu yàlla saaliw la gas leen ndoxum ngëneel gaa ngi mos leen te mooy kitim lépp nit leen sangub bi yaa ngi leer na gaay li tax waxu leen ma li tax ma sang bi wax Seex Saaliw nu doy ay waay lañu digge woon jaamuru yi nangu woon ñépp a wax leen Seex Saaliw nu doy xam nañ loxo ba ñu tiimoon ban ki ko raaxoon soriwul wax Seex Saaliw nu doy kii mooy sun boroom si maamul wara ko bindoon nosu mi ndef yaa ngi ci man ay sëriñ tuuba irham jami alwara ki moom wax leen seex saaliw ndeysaan kàddu yërmande ngi borom yërmande moom sama kàttan ak sama doole yàlla daf maa doole dugal ma ci biir alquran wax naa ko reer sëriñ tuuba dafa jël 6666 ay ci alquran yaa ngi dégg li ma lay wax jël 60 60 jël dégg nga maam euh, jël dégg nga maam 1 million 987 muuy ci alxuraan sëñ Tuubaa dagg ko benn par benn jël baa ji jël raa ji jël yaa ji jël kaa ji jël zaa ji jël baa ji jël baa ruum ji dugal ko ci biir ne ko yàlla ne doole ji nga jox alxuraan maa ngi lay ñaan sama départu fulki bi na yanu doole jooja jeexantal ba nag maa ngi ñaan na doon si jëmm ji yow yàlla suñu borom ne ko dinaa def digg bi muy rasulilaay tàmbali bi di man yàlla jeexantal bi di yow xaadimu rasuul daal di koy wax ne ko ku naan sa texe du fekke fu nu koy jànge suñu borom dellu wax na ko sëñ Bamba mu ko ah mu ne ko di nga ko bind ko ci àddina mm-hmm. waaye ruu yi nekk seen diggal maam waxuma ndey de lu muy nekk seen diggal maam daal ñu bég ngir gi ngay bind fulku bi ndax yàlla leen may jamono ñu fekk kuy jàng fulku bi daa ne waxuma la yow mi ko mokkal waxuma la yow mi koy jàngul waxuma gi ñu koy jànge waxuma ko ëtt bi wala pénc bi sëñ Bamba nee na tàqali tàqalikoo na ñoom njàqare ci dootuñu Bamba nee na fulku yaa ay turu buy dem barsax mm. ñu ne sëñ Bamba sëñ Bamba ne fulku bi buñ koy jàng fekk na yi dem barsax ñu bi su لهم دخلا كفيتنا والفلك النعيم بخير برزخ عدالة الإلهية سهما ومقامه في سيف الأعلام وسيف الأنوار قبره نعمة قبره رحمة قبره معرفة أجل إلهية سهما fulki bi buñ koy jàng liir war a gane àddina ca pinc mooma sëñ bamba na mu neex mu naqari sëñ ne dinaa ko dugal ci sama njaboot oh. nee na la waral loola mooy day sagal boppam sëñ Tuubaa neex yàlla defal na ma yi nga xam ne bi ma bindee fulki bi ndax nee muy seen ne ko lu tax mu ne gaalu yonent yàlla noox nga moo tuddoon fulkul tajri fil bahri kal a'lam mu ne gaalu noox googee daa ne ci duggoon douze personnes la ne bi may bind fulki fukki personne ak ñaar ñoom laa teg sama saxaaba yi saxaaba bu ñëw tok ñu la anjil anjil wàccal anjil wàccal Ababacar ñu ko ñëw tok Amar tok usman tok ali tok Soubayrou tok Talata tok Saad ibn Abi Waqas tok Zayd ibn Haarisa toog Abdourahman ibn Awf toog nu jek jek gesso seen abay tok seen Bamba ne rasulay mi ñëw te bi njol lakk ñëwee nag ci la commencé bind fulk bi di ko bind waaye boo demee ba ci biir fulk ba day ne sëñ Bamba naan masaaxidu wa abwaabu ala nuuril jannati li jannatil illiyina abaaha wa rasuluka ala al muxtaari min mudarir nawaytuhu sarmadan salli wa sallim ala man asrafa bi xayri bariyati nuru rahma wa nuru anwaaru bi xayri kiramati ya rabbana afdalu kullu jiwaari wa afdalu kullu nicmati bil xayraati min al insi wal jinn sëñ Tuubaa ñaanal na ci fulk bi bay ñaanal xeer yi ñaan na bay ñaanal rabi àll yi ci fulk bi ñaan na bay ñaanal safara naan ko yow safara sa tàngoor wi maa ñaan ci daraja fulk bi képp ku ko mës a dégg sa nopp bu la jubee yàlla nga mel ni galaas xuful naaru wa sukkun ko ala nuuril xadaa mu dellu ne ko yow dafa yow safara yow laa waxal ci biir fulk bi na ci ñi nga xam ne bu may jàng fulk bi wala ñu koy jàngulu wala ñu koy jàng ci ëtt nga bokk awu safara nangul ko ko mu ne ko aljanna yow waxuma ak yow ndax yaay suuf bu suuf ba yow wa jannatu aqlaamin xalaamun li xayri naimin ala dunya wa uxaaya ila aljinaani sarmadan wa faaqa ila hamdi wa sukri bi xayri bariyat da ko yow aljanna jërëjëf sëñ Bambay bi dafa yàgg mu ne aljanna jërëjëf dégg naa sa aw bul foog ne dégguma ni may aw daal di ne ko yow chef yow chef yow chef de appartement bi muy Firdawsi dégg naa ni mooy aw sa sa sa njaboot gépp ngi aw jannatul ma'wa ngi aw jannatul salaam nga am jannatul na'iim ngi tul mu ne sëñ Bamba mu ne keroog bi ñuy aw aljanna ju ci nekk dama koo xool xool ne yàlla jagleel ful ko ko lañ ca bëgg ak lañ ca xam ak seen dara dama boole leen ak aljanna jooju ci biir ful ko ba seen docteur yàlla ngay wax Serigne Touba naan ko yaa ngi bind rek di wax waaye dinaa la xam ne bi daa accès ci man laal nga ma دعاكم وجل على من جلاله رب العزة للكمال ورب العزة للجمال أفضل كل خالق خلق الله شريف قدره على نعمتي يا رب أفضل الورى يوم يلا يوم ما يجي من بعد لا تفهم ما يلقي كتب رسول الله سابون ولا سما خلي من دون ما قتيع ثم ترى لي خلي مجي di dallu ngir mën a wax ak rasulillahi xalima gi di way rasulillahi sëñ Tuubaa nee na ci biir fulk bi dem naa ba toll ca digg ba su ma bëggee yëkkati xalima gi xalima gi dama ko bàyyi ma mbàcce ma mbàcce delloo di nga tëral sa loxo noppal ji sëñ Tuubaa ne ko wa yëttika ala katabtu kitaaban li xayrihi ala rahmatihi wa farxu alwalidi mu ne ko su ma toogee dal ba yow xalima gi ngay bind fulk bi man ma téye sama loxo maa ngi ñaanal sama ndey ja soxna jaariyatul day ak sëñ Mamadou ñaar yi Serigne Touba na ca fulku ba ndax lépp dañu timis bu ñu ko jàngee fulku tàkku saanu timis nee na diggante booba luy bu fi gën a addina suñu borom boole ko ci minal muhsinina nee na kuy dem barsak yàlla boole ko ci minal muqarrabina ñu ne ko sëñ Bamba mu ne koo xam ne da doon dox ba xamatul fu mu ku teg fekkee fulku yi suñu borom ba mu ne jàkk yàlla na jàkk rasulaay jàkk sëñ Bamba te sëñ Bamba ne ku mën a jàkk ne jàkk yàlla jàkk rasulaay sa jaaxle jeex na mune ne géej gaa aw fulku bi li nga ci ñun dañoo foog ñun do nga koy jàng sëñ Bamba nee na géej gaa may aw fulku bi wal bahru nuru nuuruka aqlaamun qalaamun lil fulki maskuul adaytanaa wal jibalu aasubu min kulli da'iman badat def ilaahiya sama wa asma'uhu bi khayri min al kaba ci Tuubaa nee na xeer yi bu may jàng fulku bi dañuy yëkkati ko di nodd di tuddu yàlla gaynde yi buñ doon dox ci àll bi bu gaynde seenee kéwél do ko laal ngir waxal fulku bi bu ci nga rombee bay day àgg sukk ba buy jàll mu soog a yëkkati ko waat ñu ne ko loolu dara loola sëñ Bamba ne ay na naaimu li naaimu ru'yati anwaaruhu samaytuhu ala alkiraami min atmati sëñ Bamba nee na sama leer gi may bindee nee na yàlla rus na képp koo xam ne da nga daan jàmmantoog sa morom fi mu ne ñi nga xam ne nii sax ñoo daan nuyoonte nuyoo bu àggul sëñ Bamba nee na fu ñu jàng fulku ba bis boobu nañu dàkkal loolu te kenn ku nekk si ñu xool sa morom jox ko loxo te xam ne yéen a bokk ndaawu sëñ Bamba ah. te sëñ Bamba nee na lu ma nafta boole ndaa jox leen fot ñu daje ci benn géew kon kenn ku ne joxal loxo ka nga dee borom ku dem dem gore leen sant Serigne Touba. war nga di jaajëf borom Touba. la daloon sàcc ba daloon lool laaj leen ñu ko daloon bala maa toog sàcc ba daal sàcc ba mu bari comme doon sàcc docteur Ndaw lëndëm te ku ne xam ne lëndëm génn ci mu yombul. sàcc bi li mu yonu diis na te néeg bi lëndëm na. ndeysaan mu jékki-jékki seen luy weex mu jàpp ne contact la xëy na dongul bu ko a lampe bi tàkk mu mën a génn da nga ci mosuma wal ba lay taal. na bala laa contact ko rek mu dañ ne yeewu daw na këlëb ci kawam mu ne leen lu xew ñu ne ko yaay yéen nit ñi mu ne leen téye leen yéen ñëpp laay walal waaye nit ñi loolu dalunu moo tax damay faral di wax de nit day ànd koo ànd te bàyyi say bopp daa fekk kooku ànd ko docteur bi dëgg nee naa ko jëmm a daa tax mu ñu ko procureur procureur war ko àtt ni ko ba talaata ba mu ñëw moom doo nga àndoon ne xoon naa àtt yaay waaye daada moo koy bokkam moo ko bajjanam moo ko frère yi cousine yi ñuy fukki golo ak ñaar ak moom ñuy fukk ak ñett ñu ne ko ñoo lay yóbbu ci tribunal ba ñu demee ba àgg tribunal ñu taxaw ca baar ba procureur di leen xool ba yàgg mu ne juge bi ñëwee kan laa ca kaw kawoon juge bi ne ko tane wuma la ci libéré ngeen doon yuwo waaye boo ànd ak say bokk moom waaye moom nii ndaw boobu ba léegi dama leen a bàyyi Adja boobu ba léegi dama leen bàyyi ngeen di wax ci docteur dama ko wax ci dama ko wax soxlaa ma ngi toog zile gi nii ma ne ko sa jëkkër dafa sa borom kër dafa amee di koy sombi mu ne ma nag leeral ko ndax sombi la mooy la ma ne ko sombi day ceeb boo xam ne saa bu ñu ko jëlee ca saako ba goree tax ñu mat ci métier loo ko xam-xam bu muy weex ngir gore docteur Ndaw ànd naa ko yorul ànd naa ko yor waaye ku yorul boo ànd ak moom ni muy fiyeere ak ni lay téye du bokk sax ñeneen ñi ngir xam ni ko sëñ Bamba defal ma ne kon moo ma ne Binta sa borom kër ci